avant ñuy woo ñi nga xam ne ñoom ñooy jardin bi nga xam ne ñoo waru a ubbi jotaay bi mbokk yi ñu présenté leen école Khadim Rasoul bi nga xam ne mu ngi fii ci Touba Qaira ci njiital Oustaz Ibrahim njaay ak ñi mu àndal mbokk yi école a ngi boo xam ne bi mu juddoo yàggul mën nañ ko waxee noonu ci ay at waaye mu mel ni ku avancé la ci ay at ngir liggéey bu extraordinaire boo xam ne liggéey na ko mbokk yi écologue boo xam ne ci organisation du ko mës a bàyyi ginnaaw ndax xam na ne loolu mooy lépp école la boo xam ne mbokk yi wane na ay preuve ci diiru bu gàtt ginnaaw boo xam ne xam nañ li ñu war a xam jàng li ñu war a jàng rawatina ci wàllu administration ñu jëmmal loolu ci ay boromi xeltukat ak boromi xalaat yoo xam ne ñoo leen di accompagner ba tey jii ñu forme benn institut boo xam ne mbokk yi lañu fay jàngale mooy islam ak lépp lu xeet moom waaye fàttewuñu benn yoon jamono ak ni muy doxee te loolu buñ ko waxee mooy yeneen langue yi ak yeneen xam-xam yi école bi ñu tuppee ko xaadim rasul waaye mu am ci biir ay meññeef yoo xam ne tey fi tey xam ngeen lu gën a bari ci woy saytukat yi ak ñi bëgg xam-xam tax ñi bàyyi ko fu nekk ñëw di wëggu ci mànd xam-xam yi nga xam ne moo nekk ci école bi kon école la boo xam ne mbooleem parents d'élèves bi nga xam ne ñoo ko tànn dugal fa seeni doom juumuñu ci choix bi waaye juumuñ ci li tax ñu indi fa seen doom ndax équipe bu dynamique la amee administration bu jaar yoon waaye njàng moo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu nee ba ci kanam dañ leen wax seen résultat yi ñu am depuis bi mu existé ak tey rawatina ren jii nga xam ne centre bi ñu doon defee examen ñëpp ne leen chapeau muy école Khadim Rassoul loolu ci kanam incha allah dinañ ci ñëw ak yéen. kon mën nañu wax na ci existence bi mu def moom école bi def na ay preuves yu palpable indi na ay résultats yu solide waaye tamit participer na ci système éducatif bi ni muy doxee ci réew mi loolu mbokk yi nekk lu am solo loo xam ne dëgg yàlla. ci kanam tuuti dinañ ci ñëw ak yéen ci nu mu gën a yaatoo ngir tàmbali programme bi mbokk yi ginnaaw bi ñu nuyoo parents d'élèves nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi nga xam ne kenn bi ñoom ci miim réew ndax mboolem tey ñu ngi fiy gis mboolem tey ñu ngi fiy naw mboolem tey ñu ngi fiy sukkal mbokk yi ñii ñoo leen di former muy les enseignants ñu leen di nuyu baax a baax leen ziyaara ñoom jàngalekat yi kon dañuy tàmbali programme bi. ak waa jardin d'enfants bi nga xam ne ñoom ñoo war a ubbi jotaay bi ci seen colka cosaan bu am solo bi te diinewu incha allah mbokk yi ñoom la ñu war a tàmbalee suñu programme muy groupe 1 di alquran présenté par Kaba Mbodj ak Modou Guèye Serigne Fallou Guèye également ak Fallou Abi Diouf niki Cheikh Dieng Ibrahima Diouf ñoom ñu war a ñëw ak nun ci suuratu nasri j'espère que dañu way ba noppi aywa yéen xale ñaan la mese màkko la la la la la désolé, même si nous serons tout l'été les plus heureux des écoliers, tu ne seras pas oublié. Merci madame, merci aussi à Seyda Nday Niang. jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Merci, ami collègue. Merci, chers parents et invités. Ma mère que j'aime beaucoup m'a tout donné. Je me laisse cette bonne mère ma vie entière. Elle m'a soigné Elle a brassé ma fourchette blanche et propre, m'a appris à tey thème am solo te mooy tas bu bari yi dañoo seetlu ne téeméeri jigéen yuy sëy balaa an ma dellu si quatre-vingt-quinze pour cent dinañu tas maanaam juróom-ñeent fukki ak juróom dinañ tas ñuy laaj nag jigéen ñi ñoo sëyatul wala góor ñu ñoo yoratul kenn wala goro ñoo tas sëy wala njëkke ngir waxtaanee loolu moo tax ma dara sama plateau soxna yi tedd yi ci si njëkk te mooy soxna Mama Samb soxna Mama Samb maa ngi leen soxna may Mbàkke waa plateau bi suñu deuxième invité mi ngi tudd soxna Maam Jaara soxna Maam Jaara Taal maa ngi sama troisième invité bi soxna Mame Diarra Diop soxna Mame Diarra Diop maa ngi laaj ku bari yi lu ko waral loo may la sëriñ di ziyaar oustaz ibrahima ndiaye mi nga xam ne moo sos école bu màgg bi ñu duppee école xaadim rasul muy école bu barkeel boo xam ne ay élèves yu bari génnee nañ ci di ziyaar nag ñi fi teew ñëpp ngir wuyu wooteeb sunu borom bi subhanahu wa ak dundal sunna si yenente bi sallallahu alayhi wa ak sàmm nonnal see Ahmadou Bamba li mu ñu bàyyee tey nag danoo bëggoon am ak yéen jotaay bu am solo boo xam ne mi ngi jëm ci Touba ci kanam jotaay bi nag ñi ngi ko tuddee Cheikh Mouhamadul Mountakha ndax képp kuy liggéeyal Serigne Touba rek sëriñ Mountakha nga ko defal muy jotaay bu am solo boo xam ne man ko war a bokk ak sama gan yu tedd yi di soxna maam Faat Seck soxna maam Faat maa ngi lay ak Serigne Mbaye Diop Serigne Mbaye maa ngi ak sama mag ju ji di soxna Mariama Cissé soxna Mariama maa ngi lay nuyu. Ndongo Diouf Serigne Ndongo maa lay

Tuubaa la moo xam ne njabootu boppam nga moo jiitu ci liggéey ba ànd koog taalibe yi muy lu am solo alhamdulillahi rabbil alamin alqaa'ila fi kitaabihi alkarim wa maa arsalnaaka illa kaafatan linnaasi basiran wa nadira walakin aksara annaasi laa ya'lamuun wa ashhadu an laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lahu القائل في محكم التنزيل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد kon soxna Ndeye Aida maa ngi lay nuyu di la ziyaar di la sant ci invitation balaa maa dikk ci sàtt yi sëy damay dikk ci lan mooy sëy suñu boroom subhaanahu wa taala ñu indee àdduna dañoo def ñu nekk ay góor ak ay jigéen dañoo digal ñuy dencante ci suñu biir comme ni mu ko waxee ci alquran rek yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsaa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير kon ma ñëw ci question bi si njëkk sàtt yi wéral bi si njëkk mooy ay kilifa jigéen bu musta am boroom kër il faut ay kilifaam d'accord ci sëy bi ndax yorent bi dafa wax ne laa nikaaha illaa bi waliyin ñaareel ba mooy ay seede sëy bu amul ay seede rekk baaxul seede yi nag ñu commencé si ñaar yu maanu wala lu ko ëpp yàlla dafa wax ne wa ashidu sahidayni min rijaalikum ñetteel ba mooy cëng cëng alal joo xam ne daa bokk ci sàtt yi wéral sëy cëng bi ci gën a néew sun ndax sun borom dafa wax ne waatu nisaa saduqaatihinna nihlatan can bi ci a néew bu dee fii si Touba vingt-six di juróomi junni ak ñaar téeméer ñeenteel ba mooy xutba ndaxte suñ borom da koo daganaloon waaye bugg ko fase nag mooy góor wala jigéen doyal ci sëy bu dee góor mu wàcc wala jigéen ñaan baat waaye nag am nañoo xam ne bu ñu fasawee lislaam du nangu lu mel ne ab xale ba keroog muy majeur wala ku ko ak xelam wala ku feebar tëdd ci hôpital yéen ñépp ku ci fase lislaam du ko nangu yàlla la lu fi dëng matadik doomu aadama la wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullah السماء السماء السماء جفا كتيب صدور ميزان ترك ميزان ترك واحد اثنان ثلاث واحد اثنان ثلاث واحد اثنان ثلاث واحد اثنان ثلاث أسري صدرا أسري صدرا ضرب يمين ضرب تسليم وعليكم السلام ضرب يمين ضرب daa si li jëlal micro bi jëlal micro bi waaleykum salaam daar yamin daar taslim waaleykum salaam dar yamin daar taslim waaleykum salaam ñeneen ñaan ñeen yéenay ñaan ñeen yéenay ñaan ñu ñaan soldaaru xaadim rasul lan mooy seen baat jàng yar yéete lan mooy seen baat jàng yar yéete takbir allahu akbar takbir takbir اعتدال الثاني أول اعتدال اعتدال الثاني أول رمز احترام إنا نحن نزلنا وخوص براملا واتناك واتوك ممتر بورلا إنا نحن نزلنا وخوص براملا واتناك واتوك ممتر بورلا aha inna nahnu nasalna wa xuusun borom la wàcce na ko wattu ko moom tere bu wóor yami inna nahnu nasalna wa xuusun borom la wàcce na ko wattu ko moom tere bu wóor yami يمين يمين إنا نحن نسلنا وخوص برام لا واتيناك واتوك ممتر بوال اعتدال اعتدال اعتدال الثاني أول مكة القرآن mokkal alquran baqara banaas coono yi ci nekk indal yeneen jàmbaar mokkal alquran mokkal alquran baqara banaas coono yi ci nekk indal yeneen jàmbaar aywa jugleen ñu taxaw màggal alquran jugleen ñu taxaw màggal alquran xaale xayra waa moom rek la taxaw màggal alquran xale xayrawa moom rek la ñuy dunde ay wa ay wa jooyu ñu fi yaay akit suñuy baay jooyu ñu fi yaay akit suñuy baay baay bu leen jaaxle sunu dara neex na ay wa ay wa jooyu ñu fi yaay ak it suñuy baay jooyu ñu fi yaay ak leen jaaxle sunu dara neex na aywa lañ bëgg a علي جروت بقر بنات دلت بكتر علي جروت بقر علي جروت بقر بنات دلت بكتر علي جروت بقر أقربنا سيدا للبقتر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله محمد صلى الله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 أيها الحضور الكريم أصحاب السماحة والحضور شيوخنا الأعزاء إخوتنا الكرماء فقامة سفهاء الدين الإسلامي فإن التلاميذ الخارجين في المدرسة الحربية الفرنسية خادم رسول بقيادة فضيلة المدير إبراهيم نجاي نقدم إليكم تحية الإسلامية بداية من خليفة المريدية شيخ محمد المنتخى أطال الله عمره وبقاؤه وجميع المسلمين فإن هذا الخطاب يتصدر من تلاميذ الخارجين في المدرسة خادم رسول نيابة عني ونسجه التلاميذ والتلميذات ليجتهدوا في طلب العلم والتمسك به لأن العلم هو مصباح المؤمن ونور الذي ينهار به المرء للسير في طريقة إلى الله كما قال الشيخ القديم رضي الله عنه وصيتكم يا جملة الطلاب بطلب العلم مع الآداب اجتهدوا في العلم والتأدب وسعي وهي جالبات الرغب ونوجه إلى حضراتكم المصرفة تحية طيبة من أعماق قلوبنا وخاصة أستاذ إبراهيم جاي وأستاذ عبد الله قمة والسيدة نيجان هؤلاء الذين بذلوا نفس ونفيس من أجل حماية وضمان مستقبلنا دعواهم في سبحانك اللهم وبحمدك في السلام الواخر دعواهم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Remercier pour cette année passée à nos côtés. Nous n'avons pas toujours été les plaisantis des écoliers, mais tu nous as tous dotés. Nous n'avons pas toujours été les petits enfants des écoliers, mais tu nous as fait progresser. Même nous serons tout l'été les petits erreurs des écoliers, tu ne seras pas oublié. Merci madame, merci aussi à Seyda Ndiaye Niang. alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wa sayyidil mursalin sayyidina wa mawlana muhammad ibni abdillahi wa ala alihi wa sahabatihi alqurril mayamin wa man tabiakum bi ihsan illa yawmiddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yaqulu llahu tabaraka wa taala qul bi fadlillahi wa bi rahma fa bi zalika falyarfahu huwa xayrun mimma yajmahuun intilaqan min haadihi al-aayaati al-karima aayati sukri wa taqdir wa imtinaani wa taarif saaratan an nafsi ismahu lii ayyuha saada fi bidayat an arfaa aayati sukri wa taqdir wa imtinaani asaaratan an nafsi wa niyaabatan an jabihi talaamizi safi saadis ibtidaai fi haadihi al-madrasati al-arihati wa sharhi al-ilmi madrasatu xaadim rasul illa saadatil mudir al ustaz ibrahima ndiaye hafizahullah wa rahahu maa ngi nuyu mboolem ñu nekk si barabu sell bi di ko sëriñ xaadim rasul di rafetlu présentation bu rabatul atfal si bi ne ñoo ngi ko sargalee jigéenu Talaatay Ndeer looloo tax ma ñëw ngir waxtaan ak yéen ci xew-xew bi nga xam ne bokk na ci xew-xew yi gën a marqué ci histoire Sénégal Talaatay Ndeer mi ngi amoon ci jamono talaata mi ngi amee woon ci fi ñuy wax ndeer jamono boobu nekk ndeer moo nekkoon capital bu waalum barak wa turam barak amar fatu mbor su mbooj am di li ngeen fatim yamar xuru yaay mbooj ñoo amoon ñaari doom mu njëmbët mbooj ak nete yàlla mbooj lu jiitu xew-xew talaata ndeer nag dafa amoon histoire bu amoon waalum ndaxte boobu réewum France dafa signé woon ab accord ak waalum nga dafa am waalu woo xam ne ci seen suuf dañ ko jagle France mu amoon si atum 1819 waaye accord boobu arrangé woon ñuy wax muur yi te moo ñu nekkoon réew Mauritanie ndaxte muur dañ daan ñëw waalo dafa jàpp ay jaam ngir jaay leen te falas da leen a gàllankoor si loolu looloo tax ay xeex daan dox diggante moor yi ak waalo li waral xeexoo talaatay ndeer nag ba jigéen dajaloo taa seen bopp mooy ci xeex yi doxoon si diggante waalo ak moor yi barak bi daf see jële ay gaañ-gaañu ak ñeneen si ñu mu àndaloon set la 7 mars 1820 ci la barak bi demee ndar ak ñi mu àndaloon ngir fa yéen ñu ko ñu dem tool ñeen dem rëbb ji nga xam ne waalo ay jigéen ak i xale ak i màgget rek ka fa des ci ay jigéen rek fa des ba Mor yëgee loolu nag si la ñu waalo ngir jàpp maa ngi nuyu képp ku fi toog ni yëpp islaam asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu ginnaaw présentation zem 1 bi nga xam ni ñoo ngi ko dara jaale soxna jaaratullaahi buso looloo tax ma ñëw ngir di tax ak yéen si ay jaar jaaram soxna jaaratullaahi buso mi ngi gane àdduna si atum 1833 si dëkk bu ñuy wax Musoobe nekk sa Padoor waajuram bu góor mi ngi tudd Serigne Mohamed Bousso waajuram bu jigéen mi ngi tudd soxna maam Astawaala Mbàkke soxna Jaatulaahi Bousso mi ngi bokk si famille bi ñuy wax Musoobe turam dëgg nag mooy soxna Mareem Bousso waaye ak ragal ak toroxloom ak sax si jaamu sun boroom moo tax ñu dem ba tuddee ko jaariyatullaahi maanaam dëkkandoob suñ boroom soxna jaaratullaahi buso moo nekkoon ñaareelu soxna bu sëriñ maam Mor Anta Sali Mbàkke yàlla daal ko fay defal mu am fa ñeenti leer muy sëriñ maam Mor jaara borom saam sëriñ Habibullaahi Mbàkke ak soxna Faati Mbàkke bus ak sëriñ Tuubaa see Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul soxna buso bi ñu ngi ni dem kër borom këram ginnaaw bi defee yenn si ay ndénkaaneem ba pare dafa ibbit kaamil alxuraan bi yem si waxu suñu borom ji ma kaana muhammadu aba ahadin min rijaalikum walakin rasulallaahi wa xaatama nabiyiina daal ni giñ naa ni bu dul woon ak waxi suñu borom ji yonent bi moo tey yonent kon dinaa fi jur ab yonent waaye dogu naa ni dinaa fi am koo xam ni fu ñu tuddee ab yonent tudd fa te suñ borom may na ko muy Sëriñ si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul maa ngi tudd Mariam Mbacke jàngee école franco arabe Xaadim Rasul di rafetlu présentation bu CDE bi nga xam ne ñoo koy dara jaale Mariam Ba maa ñëw pour leeral tuuti si histoire Mariam Ba Mariam Ba mi ngi juddoo ca Dakar si atum 1929 waajuram bu góor mi ngi tudd Amadou Ba waajuram bu jigéen bi mu moom nag mi bokkoon si famille bu papaam nekkoon fonctionnaire si état bi moom nag nekkoon nag ku teel a yaay mais taxtaan mu jaaxle ndax ay maamoom ñoo ko bi mu tollee si jàng ñu daal di dugal école française bi nekk Rufisque fa la ba génn fa la jàngee ba génn fa mu nekkoon ku jàmbaar lool si jàng ba ñëpp ràññee ko ndax bi mu amee 14 ans si la am certificat daal bi nekk. daal di dugg si école normale si atum 1947 fa la jàngee ba génn fa ak jàngale ak diplôme jàngalekat mu jàngale 12 ans Mariam nekkoon na bindkat bu mag bind na livre bu ñuy wax une longue lettre ak jàmbaatee moo ko may ñu tuddee ko benn école bu nekk ca France ñu koy wax la maison d'éducation Mariam Ba. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen mbokki julli di mbokki taaliba yi ginnaaw présentation bu CP bi nga xam ne ñu ngi koy jagleel Aline Sitoé jaata moo tax ma ñëw leeral tëj jaar jaaram Aline Sitoé jaata mi ngi judd ci atum 1920 dëkk bu ñu wax Cabrousse nekk sa Casamance waajuram bu góor mi ngi tuddoon Asne Diatta waajuram bu jigéen mi ngi tuddoon Sirisia jaata mu nekkoon jigéen bu mën góor lool mu nekkoon jigéen bu mën góor lool dañ koy wax jigéen bu jàmbaar daan na xeex lool daan mu nekk mu nekk ku bëgg gëddam bu mag di waa dëkk bi ak ay jigéenam bu leen fàtte li ngeen doon ak fi ngeen bokk loolu metti tubaab bi daal di coloniser di ko wan ak paiement des impôts ak liggéey force ak paiement des ak liggéey force loolu ak liggéey force loolu metti tubaab bi ñu daal di koy jàpp ci atum 1943 daal di koy àtte daal di koy tëj ca Barkel ak Tombouctou mi ngi faatu ci le 22 mai 1944 merci. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu ginnaaw bu ma sante yàlla julli ci yonent bi wa ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci suñu bis bu màgg bi nga xam ne yëkkati kàddu yàlla rek ak gën a fàttaliwaat ni ñi seen boroom moo ko tax a ndax suñu borom dafa wax ni ba zikir innal nafaxati zikra maa ngi wax na si ay kàddu ci mboolem élèves yi jàngee si école bi rawatina classe de CM2 ñoo ngi jeexal suñu jàng si école bi madrasatu xaadim rasul bi nga xam ne ñoo bi nga bi nga madrasa Xaadimu bi nga xam ne dara warul lu ñu sos ko loolu jàng ak jàngale ak yar di ko ci mboolem jàngalekat yi bàyyiwuñu kenn ñoom de seen jaan wàcc na. ñoo ngi nuyu képp ku toog suñu bis bu màgg bii nga xam ne amuñu lu dul moom di leen wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal duyuuful kiraam kii wax ak yéen mooy soxna Fassa Jaka élèves en classe de CE1 ñu bëgg waxtaan ak yéen ci histoire l'école franco-arabe Xaadim Rasul masidala sama sayda yi te di toog ko mel ne sayda Nay Ñang ak madame Mengo ak sayda Fatou ak sayda Ami sayda Nay Ñang ñoo ngi leen nuyu di siyaar question première question mooy seede bi ngeen nekk num tudd ak fu mu nekk soxna Fatou Sadio maa lay fay di wax suñu directeur Ibrahima Ndiaye ak suñeem di directeur Abdoulaye Xuma amoon nañ yéene teew ci jotaay bi waaye ngant dab ñu moo tax ñu yebal leen ku tontu sa bi école bi ñi ngi sëriñ tuuba seex ahmadu bamba xaadim rasul mi nga xam ne dara yitteelu woon ko lu dul xam-xam moo tax mu taalib téere yu bari ci xam-xam wax ni sax xam-xam wax ni sax jërëjëf Seydi Ndeye ci leeral yi am solo yooyu kon ma jàll ci madame Meng madame Meng kon maa lay laaj école Xaadim Rasul kañ lañ ko créé ak kan moo ñëkk a nekk directeur ba kon soxna Fatou Sadio maa ngi lay fay di nuyu képp ku ñu seetaan pour revenir en question école franco-arabe Xaadim Rasul ñu ngi ko créé bisu mercredi le 16 septembre 2016 directeur Bari Ibrahima Ndiaye di def liggéey bu rafet bi moo personnel am bi mi àndal ma man seelim oustaz Abdoulaye Ouma oustaz Babacar Moussa Diouf et Moussa Ba jërëjëf madame Meng si leeral yi am solo yooyu maa ngi nuyu aussi ñëpp ñi nga xam ne ñoo teewoon ci fête bi di leen sant di leen gërëm wax dëgg yàlla toogaay bi metti na temps bi yàgg na waaye ànd ak lépp ngeen muñ ko ba mu jeex ak ñun wax dëgg yàlla amuñ seen fay di sant aussi waa personnel bi nga xam ne ñoom lañ bokk liggéey wax dëgg yàlla ñu nekk nit ñu baax nit ñoo xam ne nit ñi ci jàmm kese liggéey rek la ñuy def jox école bi seen lépp wax dëgg yàlla kenn mun leen a fay sant sëñ Saliou mi nga xam ne moom lañu yàlla boole mu suñu borom kër bu baax nga xam ne wax dëgg moo ñu jàppale ba lii ñuy def ñu man ko moo ñu jàppale moo ñu taxaw ba lii ñuy def tey ñu man ko tey di sant suñ sama waa kër na wax dëgg yàlla suñ ma taxawul woon nangul ma li nga xam ne moom laay def du sotti kon daal maa ngi sant ñëpp di sant tamit sama ustaas bi nga xam ne moom ma jàngal mi ustaas Malick Ndiaye mooy maa ngi ak cant di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla taxaw te guddal fanaam wéral ay cëram maa ngi sant ñëpp ma kenn incha allah jërë ngeen jëfas bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala afdali xalqillah sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi sabi ridwani tamkin eh, di nuyu bu baax mbokk yëpp yi nga xamante ni ñu ngi ñuy siifu di am kàddu yi cant yoo xamante ni ñu ngi koy jagleel al mudir Ibrahima Ndiaye te yàlla gis nañ taxawaayam bu baax a baax a baax a baax si école bi eh, nga xam jox na ko léppam dëgg yàlla ñi nga xamante ni ñooy nekk ak moom suba ak ngoon guddi bëccëg dëgg yàlla euh, mën nañ see seede loolu si taxawaay bi nga xamante ni mi ngi ko taxawee si école bi ndiki tamit di sant mbooleem euh, jàngalekat yi nga xamante ni ñoom lañ seqal liggéey bi fii si école bi dëgg yàlla ñoom ñëpp kenn ku si nekk euh, wane nga sa góorgóorlu ak farlu si école bi ba dëgg yàlla xale yi suñu borom may leen résultats yu baax a baax a baax di euh, santaat ñëpp rek yàlla di rafetloo bu baax feet gi nga xamante ni amal nañ ko tey euh, ak programme yu am solo yi nga xamante ni jàllale nañ ko fi tey lool yi day gën a teg tegtalaat di wane waat euh, farlu ak góorgóorlu ak njàmbaaru jàngalekat yëpp de yàlla ñu ngi sant ñëpp jiital ko ci almudir Ibrahima Ndiaye di yamale foofu kàddu yi de yàlla am nañ kàddu yu mbégte ci école bi di ñaan. madrasatu xaadim soo suñu borom gën koo yokk gën koo kaweel eh, ba dem a dem ba école yi gën a mag si réew mi fan ngeen di dégg ñu dégg fi école bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, di sant yàlla di nuyu samay waajur di leen sant bu baax di nuyu invité yëpp di leen sant bu baax tamit surtout sama borom kër moom mi nga xam ne moom moo bàyyi may liggéey ak suñu waa kër yëpp nag ma kenn. Euh, kontaan naa di wax kontaan naa trop di nuyu ñëpp daal di nuyu personnel beeg ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. bonsoir à tous et à tous nous, nous sommes pour célébrer la fête de fin d'année de nos élèves vraiment aujourd'hui c'est un jour dont on ne peut pas l'oublier c'est inoubliable parce que nous avons vu que les élèves sont très contents de nous pour la célébration de la fête de fin d'année. Donc nous remercions l'ensemble d'abord du corps préfectoral et aussi l'ensemble aussi des parents d'élèves et aussi des des invités donc sunu xol sedd na lool ñun jàngalekat yi. suñu xol si xeet la lool ci feet bi tamit di ci nuyu tamit ko ci mel ni aussi suñu directeur Ibrahima Ndiaye ak ñu topp ci ginnaawam ñu ñëpp ñu ngi ñu ngi leen di nuyu baax di di contentement di am contentement bu rëy ci bis bu bis bi nga xam ni kenn du ko fàtte nekk na loo xam ne coono la mais coono bànneex la aussi ci ñaanal aussi suñu élèves yi xam si yàlla dogal na aussi tamit ñoom it euh, passé nan pour cent aussi tamit nekk c'est la première fois ci année bi. loolu aussi bi ñu ngi koy ñu ngi leen ci ñu ñu ngi leen ci aussi di leen ci di ñaanal yàlla sa borom mu jàppale leen gën a def école mu nekk école boo xam ne école bu gën a reconnaissant ci département Mbacké loolu ñu ñu ngi ko ci ñaan donc su suñ ko seet na daanaka amatu lu gën wax suñ ko seet na loolu ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jël lépp daal di ko di ko jox madame Mbengue di ko jox Euh, Oustaz Babacar di ko jox aussi sayda Ndeye Niang et aussi Seyda Ami ñoom ñëpp ñu ngi di ñaan baax di jox waay merci à tous di à bientôt xañ na li ngeen war na wax xëy ci waxtu bi moom tamit mais suñ xol li li ci nekk lépp suñ ko waxee rek maanaam day day day sore di ko xamal ne suuf suñ ko xet na lool merci beaucoup merci. asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bañ leen nuyoo ba pare ñu ngi leen di tey kontaan lool ci bis bi nga xamante ni amaloon nañ ko fii ñu ci am contentement lool ak mbégte wax dëgg yàlla ñi ngi sant parents yi ñi nga xamante ni teew nañ fa ak ñi fi teewul ñëpp di sant suñu directeur oustaz Ibrahima Ndiaye wax dëgg yàlla ñu ngi koy sant sant goo xamante si ni am na ko fu mu commencé mais amul fu mu yàb wax dëgg fa yàlla kontaan nañ ci moom lool di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal li mu bëgg si ak njabootam ci barke Seexul Xaddim yal na ko yàlla may ci barke Serigne Fallou di sant suñ mbokki saydaa yi fi teew ñëpp ñu ngi leen di sant suñ bokk ustaas yi ñëpp li ñu ngi leen di sant ñi fi teew ñi fi teewul ñëpp ñu ngi leen sant di leen wax ne kontaan nañ trop kontaan nañ trop li yar nañ ko yàgg di def ñu yàgg koo fekkee ay ati at man ma dëgg yàlla suma xol dafa sedd ba mënumaa wax kontaan naa trop wax dëgg yàlla yéen waa école bi yëpp daal kontaan nañ wax dëgg yàlla tey ñaan yàlla ñu amalaat ko beneen bis ñu amalaat ko nu mu gën a kawee suñu njoot ci bàkki Seex Xaddim jërë ngeen jëf ak asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp mbokki parents d'élèves bi mbokk personnel école Khadim Rassoul d'abord dañuy commencer di sant suñu directeur muy directeur Ibrahima Ndiaye si taxawaay bu am solo bi ñu taxawee depuis biñ commencé liggéey ba tey di sant mboolem enseignants yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk yëpp parce que collaboration bi rafet na trop de nekk neuf mois sans problème ni rien wax dëgg yàlla ay nitu ñoom ñoo ko mën voilà di sant aussi di si sant aussi ñi nga xam ne ni waa sama waa village ñi nga xam ñoom ñoo jógee euh, si village ñëw assister fête bi sant sama cousin yi ak yëpp vraiment di leen sant euh, bu baax a baax di wax ne collaboration bi rafet na trop macha allah di ñaan yàlla rek yàlla defal ñu euh, mun koo teewe ay at yi at yi at je vous remercie vraiment. salaamaaleykum wa rahmatullah ñooy nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu directeur ak sama mbokk enseignant yi di kontaan bu baax ci fête bi macha allah di sant tamit sama ñaari waajur ak suñu waa kër waa tali bees kontaan naa ci déplacement bi merci dama mënta wax nag merci beaucoup bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallim Eh, ñu ngi sant yàlla bu baax di jil ci yonent bi sallallahu alayhi eh, di sant yàlla bu baax ci tàmbali gi ak ci àggale ci alhamdulilah sant mboolem ku jàpp ci bis bi ci lu feeñ ak lu ak nëbb di sant mboolem jàngalekat yi tamit ndax feeñ leen seen pas-pas bu baax ci liggéey bi commencé ko ci directeur Ibrahima ak mboolem jàngalekat yi waaye di sant seen parents d'élèves yi ci yombal bi di sant di la sant yow Moussa yow mii di caméra di suñu xarit di suñu mbokk ñu di sant bu baax di Seydina Omar ci liggéey bu am solo bi wax dëgg yàlla wane nga ci ak njàmbarte ak ko sawar ñu di sant bu baax di gërëm waaye di sant kër gi nga xam ne moo ñu dalaloon eh, di sant mboolem soxna ya fa nekk yëpp ci teraanga ji ak ci liggéey bi mun daal bàyyi ñu kenn ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi nuyu parents d'élèves yëpp yi fi teew di nuyu jàngalekat yi fi teew yëpp di commencé samay wax nag ci sant suñu borom subhanahu wa laa mi nga xam ne jàmm bi lépp lum mu commencé rek àggale matal ko ci loxoom la nekk di sant sama waajur bi nga xam ne moom it ba ma waree jàng jàngal na ba ma xam li ma war a xam di sant sare tamit Serigne Bakk Abdoulahi mi nga xam ne taxawaay bi nga xam ne nii ci la waajur wala taxawaay doomam nanu ma taxawee ci man di nuyu tamit jàngalekat yi yëpp kenn ku nekk xam ne ne jàngale métti na lool neuf mois bari na lool waaye kenn ku nekk di ci muñ loolu neex ak la naqari ngir rek liggéey bi mën a mat mën a rafet ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu baax a baax a baax commencé ko ci ki topp ci man mi Abdoulaye Xuma ak sayda Neyñang ak Seyda Fatou mi nga moom moo yoroon sarde bi ci année bi ak euh, Seyda Neyñang mi yoroon CI ak madame mi yoroon CP man maa yoroon ce bi ci année bi monsieur Ba moo yoroon CE2 bi monsieur Diouf moo bi waaye tamit monsieur Diouf moo yor CM2 bi monsieur Babacar nag ak monsieur Diouf ñoom moom maa leen beral ak sant bu baax a baax ndax kenn ku nekk xam na ne classe cm yor ko métti na lool waaye teewut lu muy métti métti lépp teewut muñ nañ ko ba yàlla dogal ne examen yi jàll centre bi doon defee examen yi xale yi doon jàng ci école bi ñoo jël première deuxième trois ak quatrième loolu lépp nekk liggéey bu mat moo tax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp daal sant daal mënut a paas sant maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf.